jël xaalis bi si wolof loolu laa ko mën a waxee dafa détournement xaalis bi ndax nangu ñoo leeral ba tey dugg na 6 mois 64 millions yoo xam ne da koo bind te ëpp na 64 millions 64 millions yi bilan bu njëkk la dafa yokk horaire yi 19 départ am naa ci prix man 36 millions laa dugal yu nekk ci këyit man vie dafa yaakaar ne moom tey jël xaalis bi di buum di buumi ñun nag ay liggéey liggéeykat lañ liggéey ñu tax a jóg ñu feruñu dafa am boo xam dafa desoon mu dajale ko dem mu mat fukki million mu dem dugal ko ci oto si oto yee oto yee kan ne oto ñu oto yi benn bu ne 28 millions lay jar 28 millions oto 28 millions 0 kilomètre 24 millions 22 millions lay jar 0 kilomètre iyaas yi te bi mu def wóowul chauffeur wóowul transporteur wóowul kenn da ko def ci coobaree boppam ba léegi nag ñu ci topp di daw fu ne yuuxu fa yaakaar naa dégg ngeen ñu fu eh, dugal nañ plainte bi yóbbu ba ci procureur plainte boobu ba léegi fi may wax yow mënuma la ci wax dara